gëstu bés bi soxal wàllum caada léegi léegi lay doon aywa tey nag Ibou Diouf dafa def taxaw seetlu ci liggéeyub koo xam ne fierté la ci euh, dendop Afrique bi waxuma la ak Sénégal Mouhamed Mbaye ñu gën ko xam ci Zulu mbay moom nag euh, daal juróom fukki at mu def ko ci lu jëm ci wàllum art plastique euh, ñu ko doon delloo njukkal delloo jukkal gi nag ay artist plasticien bàyyeekoo ci gox yu fasantikoo yi ci àddina bi ñëwoon nañ teewe ko ànd ak ay doomu Sénégal ci teewaayu Ibou Diouf la ak lamin Diagne dañ koy defee saa su nekk boole kepp xumbiti waaye nag boo ñëwoon ci béréb bi sa xel dina demaat ci lu ñuy duppee école de Dakar sa xel ñëw ci ñi nga xamante ni ñooy fecckat yi cinéastes yi ak artistes yi musiciens yi ci bokk waaye nag mënuñu wax ci ñooñu te fàttali wu ñu jaar jaaru artiste plasticien yi bokk na ci ñooñee ki ñu duppee Zulu Mbaye moom juróom fukki at ca gannaaw mu ngi fësal taxawaayam boo waral ñu koy màggal. mu bokk ci liggéeyu aar bu ñëpp ràññee bokk ci mag yi nga xam ne ñoo commencé ibbi Dakar depuis 1960 euh, après l'indépendance la première école de Dakar jóge fii tukki mais ñibbi si ñibbisiwaat depuis les années 90 di liggéey nag benn liggéey boo xam ne dañ ko ci ràññeel bu baax a baax a baax. waaw fi ñu fi ñu tasee rek mooy euh, li ñu naan la la spiritualité africaine. donc ci loolu lañu ci loolu la ñu tënku parce que liggéey bi donc dafa dafa bokk ci benn ci benn série de photos euh, thème mu série bu de photo boobu c'est le corps porteur de symbole le mois en soi c'est-à-dire notre existence et notre quintessence. Euh, sunu cosaan ak sunu aada soo xoolee œuvre am yi da nga ciy gis li nga xam ne mooy li nu yàlla may ñun Afrique muy sunu xàmb yi ku wax wax li nga xam ne mooy suñu cosaan li nga xam ne moom daf ñu topp parce que euh, moom la ñu yàlla euh, moom la moom la moom la africain yi xam ci fecc L'Afrique célèbre Zulumbay noonee la ñu duppee hommage bii ñu koy jagleel muy xew-xew bu am solo ngir delloo njukkal ki nga xamante ne daanaka juróom fukki at a ngi muy fësal liggéey bu rafet ci lii di art plastique. moom morom jigéen yi moom bokk na ci artistes yi ñu dalal euh, seen oyof ak euh, aussi euh, laa biir bi parce que dinañu doon expliquer yu ci bëri yoo xam ne ñun dugaguñu woon ci carrière bi pour mun ko xam en plus Zulu nekk na nit boo xam ne. soppeekuwul te li neex ci moom mooy booy xool ay toilam nga am une lecture plastique. artiste bi li ma ci xam rek moom mooy euh, yaatuwaayam euh, li ma wax rek mbaaxam générosité am euh, parce que itam dafa yàgg di ñafe pour aar bi gën a soxaliku dafa yàgg aussi taxawu ay ndaw dafa yàgg aussi taxawu ay ndaw. Ah, di leen jàppale pour que seen liggéey gën a ñoŋ et lool te koy def ak euh, vraiment désintéressement. waaw léegi maa moom bi nu tasee il s'est passé maintenant 35 ans moom ngi fête cinquante ans liggéeyam mais dafa am fu nu croisé max moom maanaam man bi nu expo bi nu andee première biennale de Dakar dafa amoon ay artistes yu bari yoo xam ne kenn invité wu leen woon kenn sélectionné wu leen woon en 92 ma ibbi sama kër. parce que dama samay ay xaritu jëkkër la ñu ma ma ibbi sama kër daal di ko def galerie daal numéro appartement bi doon 8F mais soo jëlee 8F ci olof mooy 8F soo mooy 8F mooy pour man xob la. man maa ngi jaajëfal artistes yi rawatina ñi bàyyi ko réewu Maroc juróom-ñaar lañ ñëw rek ngir jàpp ci bés bi fàttewuma tamit sama yeneen xarit yi bàyyi ko ci yeneen réew Afrique yi. man nag sama jàpp ne ñëpp ay africain lañ moo waral du mu wax étranger. sculpteurs ci sukkandiku tamit ngir jaajëfal ki nga xamante ne mooy Binet Cissé bi amal xew-xew bi taxaw na taxawaay bi ñuy rafetlu te loolee daanaka artistes yu Sénégal ñëpp la koy def. Zoulou Mbaye di artiste bu ñu ràññee. ñi xam di ay bokkam wala sax ñu bokk moom liggéey bi di rafet lu saa su nekk jaar-jaaram mu ne nag li ko wër bokk na ci li koy dooleel ci liggéeyam fësal ko tamit lu ko yitteel la mu boole ci bëgg Afrique rawatina réewam fii ci senegal loolee mu koy fësal saa su nekk ci liggéeyam bi. de très belles images Ibou Diouf euh, mu nekkoon euh, quand même hommage euh, mérité bu ñu defal Zulu Mbaye maa ngi koy wax sànq ci taxawaayam ci wàllum septième art. Mhm. pardon ci waaw septième. wàllum septième art waaw lépp ci biir la voilà lépp ci biir la puisque c'est un artiste plasticien. Mhm. voilà dama gis ñoom Binet se ak ñeneen sama xel dem ci rek. cinéma ak wàllu art et taxawaay bu am solo bi ñu def de très belles images parce que boo xoolee moom c'est un ami intime à Moussa seen Absa. gis naa fi sax xam. voilà pratiquement ils ont grandi ensemble. donc mhm. on peut dire que septième art ak art plastique maanaam cinéma ak art mhm. plastique lépp benn la quoi. Mhm. donc ñu ko doon fàttaliku euh, di di ko rendre hommage. li nga xamante ne jot na ko def ci euh, lii de art plastique parce que moom boo ko xoolee moom Mouhamadou mbay la tudd. mais Zulu moom mooy noo turu artiste am. donc mu ngi tàmbalee atum 1970. nee na la nag. autodidacte maanaam ñoo xamante ne presque sur le tas lañ leen formé mais bokk na si ñi ñuy cité de euh, l' de Dakar hmm. mooy ñi nga xamante ne juste après les indépendances lañu ñu ñëw mais boo xoolee tour bi nga xamante ne Sénégal moom la am ci aar tey hmm. ci lépp lu laal art culture ñoom euh, les arts et les lettres ñoom ñoo leen fa yóbbu donc mu amoon ci taxawaay bu mu ci ay moo waraloon nag Euh, lii sax waroon nañ ko def at yee ci ginnaaw mais jafe-jafe yi meloon ni Covid bi moo taxoon ñu taxandi ko meren muy loo mm. xam ne mënuloon ñàkk parce que bokk na ci ñi nga xamante ne tey boo ne art plastique Afrique rawatina Afrique de l'Ouest du ma sax wax Sénégal mais mm. mënoo ci lim cinq personnes te boole ko ci mm. donc muy koo xamante ne dañu complet parce que boo xoolee ñii ñëpp ils ont eu à réaliser mm. ay documentaire wala ay film cinéma donc mm. euh, mu doon loo xamante ne pratiquement mm-hmm. c'est comme les intellectuels de l'époque mm. du loon rek ay philosophe wala ay mais ay mathématicien lépp lañ doon laal daal maanaam. Mm-hmm. donc euh, complémentarité boobu souvent dañ ko doon am. Mm-hmm. et dañ doon deflante seen biir moo waral nag bi lii xewee. Mm-hmm. ñëpp ñi ko jege ay xaritam ñu bokkal école de Dakar wala ñi gën a feete ndaw. ñëwoon décider rek ñu rendre ko hommage. jaraaf Youssou Ndoye la. kii euh, papa la un nijaay la ci euh, ki nga xamante ne mooy Medoune Diouf. di suñu collègue di caméraman. Matar Ndoye euh, Matar Ndour la tudd. Mhm. donc moom ethnophotographe la. di ko jege isam Zulu. parce que mhm. boo xoolee dañ ne spiritualité. Mhm. maanaam lu jege diine. donc euh, dañu jàpp ne rek li nga xamante ne moom moom lañ moomal suñu bopp. mooy lu jege xam yeeg li ni mel. culturellement donc boo xoolee peinture lu ci ëpp. da ciy wax. xam bi comme lébul la ses racines fàttewu ko benn yoon. donc boo xoolee constance souvent au de l' engagement dañ ne. ku jege askanam la. et mm-hmm. kuy inspiré wu ci li nga xamante ne. Mm-hmm. moom la dund wala ci environnement bi mu màggee moo waral. Mm-hmm. bi mu ñëwee rek di di euh, maanaam di waajal événement bi. ñu gisoon ne comme ñoo bokk. peut-être domaine de prédilection. Mhm. yoon la woon moom aussi mu bokk ci artistes yi ñuy invité. Mhm. au-delà d'être son ami aussi liggéey bi daanaka benn la kii mooy yaayu. Mm, suñu concert Sara Cissé. yi mm. Tata Binet moom aussi mhm. donc di. Euh, galériste galériste. boo xamante ne presque yàgg na ci un travail exceptionnel quand même ci wàllum euh, euh, culture Sénégal. exactement moom la naan Zulu buy fêter ses cinquante ans d'expérience. wala mm. de d'activité moom. elle en est à ses 35 ans. Mm. donc euh, bokk na ci ñi nga xamante ne aussi. Mm. Mm. en 1992 ci première biennale bi. bi mu amee jafe-jafe dafa ubbi këram. jagleel ko ñi nga xamante ne ñooy artistes yi. pour ah. wàññi yenn frustration yi parce que souvent du yomb. pour nga jël ñëpp. donc euh, loolu aussi lu mbay defoon na ko. Euh, moom moo amoon witeef. Mm-hmm. donc su lu mbay indi ñetti guy. muy mm-hmm. loo xamante ne dafa xawoon jegewante. mu mm-hmm. waral ñu ne. daanaka seen cheminement dafa yàgg. macha allah waral aussi bu bu ñu waree rendre hommage ki nga xamante ne mooy Zulu mm. Mbaye aussi. mu def ci ay jéego yu rafet. voilà le trait culturel bu Diouf merci beaucoup pour euh, ce beau reportage ak euh, image yu rafet yi merci également ci ñëpp ñi yëngatu ci wàllum euh, art wàllu culture euh, mention spéciale à Zulu Mbaye Binet Cissé ak ñi mu àndaloon ci hommage boobu nga xam ne dañ ko jox koo xam ne quand même na ko et puis vu des images yoo xam ne daf ñuy fàttali suñu caada yaa ngi koy wax mu lu jëm ci wàllu xam xamb yi euh, euh, exposition photo yu rafet macha allah euh, mi ngi noonu merci beaucoup Ibou Diouf gën a bëggoon nañ ci gën a taxaw mais bon Souleymane teew na te faaw quand même ñu wax ci recensement bi. léegi waaw lépp benn la ah. l'économie de la waaw non Souleymane si bu jox na la sujet euh, après xam naa ñu waajal loolu. c'est de la culture. trop bu ñu la waxee euh, prix bi. Ah euh, da nga naan mais waaw waaw da nga naan mais lii lan lan la mën a jaree lii. alors que c'est tout un travail. effectivement c'est toute une inspiration mm-hmm. derrière. Mm-hmm. bu nga xam ni ñi ah. xam valeur ru tableau. ñoo koy mën a jënd. Mm-hmm. sama classe gi nga xam ne xamuñu lu. xamuñu xamuñu nag ne tableau bi 10 000 lay jël. dinañ mhm. naa cher. <laughs> duñu xam waaw ñu ngi sant keroog Fati. pour mhm. confirmer li mu wax. le mhm. euh, mooy euh, tableau Senghor Léopold Sédar Senghor boobu le marteau. ñu ngi naan ñu ngi ko jaayee un million d'euros ñu naan un milliard de francs CFA la. dégg nga donc pour wax rek euh, li nga xamante ne valeur bi. objet yi di am. Mm. ces œuvres là vraiment mm. ñi ka xam dañ ciy def. effectivement euh, koppar bu bëri. dëgg la dëgg la yaa ngi wax foto mais am nañ tableau yoo xam ne loolu ñu naan art abstrait mën nga koo toog fii ba suba doo comprendre <laughs> il faut que artiste bi ko def ñëw expliquer la. te su expliquer nga xam ne lim lay wax ci xam-xam la ko teg. voilà donc nga gën a comprendre et c'est mm-hmm. important. Mm-hmm. merci beaucoup Ibou Diouf euh, ci euh, gëstu boobu. am na nag am na <laughs> naa naa ko yóbbu ci yoon ndax doomu. Malamine maa yore grand artiste maa yore ay tam. il est excellent Malamine. ah oui il est excellent. du ñàkk benn jour ñu dem atelier am. wala li muy liggéey il a son atelier atelier il fait un ah travail ah, remarquable. Malamine xaar kooku moo waroon a jiitu ci focus si sax. voilà Malamine ak da nga koy gis muy muy muy wéyal wéyal liggéey bu am solo lay def. c'est un artiste artiste dans l'âme dans la tête donc voilà quoi. et comme comme le disait notre président poète la culture est au début à la fin de tout développement donc c'est important. important merci beaucoup Ibou Diouf euh, ñu dem léegi nag quand même ci koom euh, ak Souleymane dernier recensement bi mooy actualité léegi léegi lay doon